auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëfe Serigne Touba jaraw lakk maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp dysfonctionnement érectile définition mooy góor gi nga xamante ni dafa am jafe-jafe maanaam mi ngi am soxna waaye dafa am jafe-jafe pour sëy ak moom normal jafe-jafe nag pour wàllu sëy nag nekk na lu yaatu ndax boo ko seetloo lu ci njëkk dafa am faiblesse sexuelle mooy première forme bi deuxième forme bi am na impuissance sexuelle troisième forme bi am na éjaculation précoce quatrième forme bi nga xam ne itam jamono ji gis nañ ko muy ci wàllu sàkkara bi nga xamante nii dafa tuuti wala dafa ndaw wala mu dellu ginnaaw. asalaamaaleykum sëñ Lamine Bara maa ngi lay nuyu di la ziyaar yi di la jox sa wàccuwaay ah di la ñaanal yàlla rek nga yàgg ci yàgg ci àdduna lu yàgg yàgg di xetti di jaam vraiment maa de doon déglu sa benn waxtaan ci varicocèle wax dëgg yàlla bëri na ay sëriñ yoo xamante ni daal joxewuñ ci daal maanaam li nañ xam vraiment yaa ngi xettali jaam yi yàlla na nga yàgg ci suuf waaw yàlla na nga dajak sëñ Touba aljana ci barke sayduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam yàlla na yàlla dafa sutura àdduna ak àllaaxira lépp looy séntu ci sëñ Touba rek yàlla na nga ci jot ci barke sayduna muhammad na ngay xettalee jaam yi yàlla na la yàlla xettalee noonu vraiment léeg nga joxe yoo xamante ni wax dëgg yàlla nit fay na ci ay milliards te gisul résultat vraiment yow ñu ngi lay gërëm di la sant maa ngi lay gërëm di la sant bu baax jërëjëf. nit ñi ëpp ci ñi muy dal buñ ko seetloo jamono ji mooy jeunesse bi ñoom ñoo ko ëpp ndax bu njëkkoon paa yi nga daan gis mag ñi nga xamante ni am nañu ay soxna am ay njaboot def nañ seen vie ba pare ñoom ñoo daan dem ba ci diggu àddina di am problème mu boobu médicament industriel yi dafa bëri ay anti inflammatoire bépp garab bu am anti inflammatoire wala antidépresseur loolu nit ku koy utiliser tôt ou tard dañ la indil impuissance sexuelle wala mu indi la éjaculation précoce wala mu indi ay dysfonctionnement ci sa wàllu sëy am na garab yu ndaw yu tuuti yooyu gars yi di jaay pour wàllu sëy ndax yooyu itim ay aphrodisiaque la kon gars yi nañu moytu aphrodisiaque yi aphrodisiaque soo koy jël pour sëy au fur et à mesure da ngay dem ba sa organisme da koy reconnaître te sa organisme su ko reconnaître ba xam ko ba xàmme ko bu yàggee dem ba dootu la jëriñ dara. salaamaaleykum wa rahmatulah waaw sëñ Ba ñoo lay ziar di la jox sa wàccuwaay euh, di sant suñu borom bu baax a baax waaw garab bi mu ñu jox essayé nañ ko. Euh, mooy buy dépanne dépannage bi waaw vraiment comme turam nu mu ko waxee dépanne na bu baax a baax macha allah ñooy sant bu baax gis nañ ci suñu bopp. waaw ah, yàlla na continue te wér topp si jërëjëf waaye yow it yàlla yokk taw féex jërëjëf merci beaucoup. dama euh, déggoon ay sëñ Bara ñuy wax ci moom ay jaloore euh, ñoo xam dañ fa demoon am ay résultats bon pratiquement mosuma sey hôpital am naa soxna non du ma woon tere sëy mais pratiquement damay sentir ni bu may sëy daal pratiquement ak bu njëkk ba ak léegi vraiment ute na uute na am na différence ci laa ñëw dégg ñuy wax sëñ Bara ma ñëw seet si bon war na mat juste euh, deux à trois mois maa ngi sentir am vraiment amélioration wax dëgg yàlla par rapport bu njëkk ba nit ku impuissant mën na éjaculer mais dafa ñàkk kattan du durer ñaareel ba day gaaw a daanu ñetteel ba itim day am faiblesse du dëgër fay am faiblesse amul endurance bi kon nag mu ngi noonu daal bëriwul njëriñ bu baax niñ koy prévenir mooy lenn lekk légume bu bari ak lekk fruit bu bari loolu moom bokk na ci première conseil bi nga xamante ni ñoo ngi leen koy may moytu itim hamburger yeeg moytu lépp lu niin ak lépp lu gras beneen prévention bi nga xamante ni ñoo ngi ko ci wax mooy éviter de faire masturbation masturbation moom bépp nit bi nga xamante ni yaa ngi koy def jàppal ni tôt ou tard dina indi dysfonctionnement érectile ci sa walu adina. traitement bi nak am nañ ci benn gamme de produits bu ñuy wax rapido extra moy solution bi xamanteni c'est le meilleur beaucoup plus adéquat a ñetti pomade la yi nga xamanteni ni kenn du ko te kenn du nan day faj lepp luy dysfonctionnement érectile ci faiblesse sexuelle impuissance éjaculation précoce lepp luy jafé jafé ci walu doole walu ngóora walu katan ak walu sey képp ku ko am rek

77 160 93 93 77 160 93 93 Guédiawaye arrêt DoubleS Kerserine Lamine barafal Bonjour, bonjour à tout le monde. Euh, je veux juste faire euh, ce petit témoignage euh, pour, vous parler du produit de Serine Lamine Barafal, le produit Rapido Extra. Alors, euh, moi, moi-même, j'ai connu le produit par le biais d'un ami qui m'a montré le sérine J'ai acheté le produit, euh, le sérine même m'a montré comment utiliser ça. J'ai constaté qu'il y a beaucoup d'améliorations. Déjà au niveau de la taille, parce qu'avant avant la taille de mon pénis, c'était pas du tout, du tout ça. Ça me convenait pas trop. Donc je cherchais des moyens pour, pouvoir agrandir ça. Mais grâce à ce produit, le, euh, le produit Rapido Extra de Serine, bah, la mine Barafal, j'ai vu une nette amélioration. Et pour vous dire, euh, depuis que j'utilise euh, le produit, je suis vraiment satisfait. Ma femme aussi est satisfaite parce que depuis que j'utilise le produit, je dure longtemps. Je dure longtemps. Donc moi je recommande vivement le produit ce produit de Serine Lami Barafal, ce produit euh, qu'on appelle Rapido Extra, moi je le recommande à tout le monde.